auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi dal leen jàmm seen chaîne YouTube le Coran et ses secrets ñoo ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci yéen tey dañ leen andil mbokk yi secret bu am solo lool sax pour képp koo xam ne danga bëgg ubbeeku bëgg am wërsëg bëgg aajo bu faju ci baatin ak ci zaahir defal secret bu ñu waji a inshallah allah secret bi mbokk yi jëlé nañ ko fóor ni képp ku ko def saxal ko di nga gis ay coppite yu am solo lool ci sa dund inshallah allah waaye pour leeral mbokk julli ji rek secret bi ñoo ko jëlé ci sunu maam sunu pàpp imam jimlo, di nit ku baax nit ku bari woon xam-xam moo ko baaxee woon ji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 mo taxit di ñaan bokku julit ci rek képp ko xas ba tàmbali na nga fexe ba saxal ko ndax di def sécurité doo ko saxal it amul njëriñ pour nga mën a gis njëriñ yi foog nga saxal ko boo ko saxalee insha allahu rabbi sa yàlla yàlla na la defal lu kawe si njort insha ñu ñëw ci secret bi gannaaw boo jullee jullik farata ba noppi ngay wax ñaan bi walillahi asmaul husna faduhu biha nga wax ko benn yoon nga jëng suurat fatiha benn yoon nga def astafirullah téeméeri yoon def salaatul fatihi maanaam salaatul fatiha nga def ko ñetti yoon jàng yaa latif 129 fois boo paree nga tëjee ko ñaan bi allahu latifun bi ibaadihi yarjuhu man yashaahu wa huwa xawiyul aziz nga def ko juróom-ñaari yoon maanaam sept fois ñu bamtuwaat ko gannaaw boo jullee julli farata ba noppi maanaam juróom juróomi wax juróom waxtu julli yépp saa ko jullee ba noppi da ngay wax ñaan bi walillahi asmaul usna faduhu biha nga wax ko benn yoon nga jàng surat fatiha benn yoon nga def astaghfirullah téeméeri yoon def salatul fatihi ñetti yoon salaatul fatiha mooy salaatul fatiha nga def ko ñetti yoon nga def euh, yaa latif cent fois nga tëjee ko ak ñaan bi allahu latifun bi ibaadihi yarzuhu man yashaahu wa huwa xawiyul aziz nga def ko juróom-ñaari yoon maanaam sept fois mbokk yi ñaar secret bi boo ko saxlee incha allahu yàlla dina la wërsëgal ba doo ñee benn morom ñoo ngi leen di gërëm bu baax baax di leen sant ndax gis nañu yéen a ngi aimé vidéo yi yéen a ngi partagé te yéen a ngi like loolu dafa am solo loolu moo ñi may doole di leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal gudd fan ak wér ak yee xewal yu yaatoo yaatu incha allah di leen di fàttali rek boo leen amee laaj ngeen bind ko ci commentaire yi te bu leen fàttee abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi partagé ko yàlla ko yàlla leen yàlla suñu borom defal jàmm defal ko mboolem jullit incha allah.